qatar that's why if it is established lolo su taxawé ko karo lota that we have saudi le that the moon is sighted in saudi ne gis nañ saudi wala lota china le or it is sighted at china wala gis nañ ko china dunia be funtita son karo ko therefore it behoves on the entire muslim ummah to be out of the month of ramadan kon warugal islamic ummah bi yeb kera ori min karo wala commence bi til kilin li nga xam ne ni moo di korite tey la start di korite date starts today so lafita min bambandi la ka sutiyandi what i want to uh, emphasize here li ma bëgg a digëral fii mooy wala mo bi mu sallungo la today is idul fitri tey bési korite la do sallungo sungo haram tale misilmi and uh, to, keep fast on idul fitri is forbidden pour que pour euh, euh, orte korite dafa haram oton ɓe musilmol danila e seeha kiloto oɗon therefore am oƴinde muslims to be mindful of this date ma nge uh, ñaah julliti ñu bàyyi xel bés bi ko fulan jaw secondly ñaareel ba ala nene man jamani halaki nene eh, man jarabo jindi jamani kan yàlla de mosuta wàcce loo xam ne ni eh, dafa nekk mbugal ci jamono ci kaw nit kaatu a beele kete ala soosolaade ngir li ko waroon moo di ne ñëpp dañoo weddi yàlla dantan nekk ala mooy yàlla dantan nekk ala soosoo ñu néew ñoo dee mooy yàlla ay ala ala ju boo yàlla mer ay kulóoroo naati mu indi eh, loo xam ne ni dafaa nekk kawte yoo xam ne dafaa yar uma ba minte moo kaar la loo xam ne ni du mooy kenn woto walayatin na duniyaa mu kulungolati kordamu kulungal ti banko mu kulungal moo tax de mu ne àddina day gaal la kër gaal la eh, eh, àddina itam gaal la dëkk bi tam gaal la moo alay moo moo marande deme naa e jéele du noo lay kan yàlla kenn ku nekk fi nga xam ne ni foofu la la teg nga nekk fa jiite loolu la la sas nga jiit loolu bàyyi ko xel ntolu min nu allahu subhanahu wa taala yam marande ñim banko la Gambia ntolu minu baa kono ñun ñi nga xam ne ni ñun la yàlla dénk Gambia fii ñu nekk fi mbee la waajiboo la mu ñun ñëpp suñu warugal la it behoves on all of us in this country so that we can be very mindful of all the sins that Allah didn't like us to be doing we completely eradicate them. Allah la jusu boo li nga xam ne nii loolu la yàlla tere ne buñ ko def ñu moytu ko. we a have thank you sir we should avoid provoking Allah the Allah la jusbo ci ko doom adama wala mo daaji ko la tiña bon modi ne jikko yu bon yi suñ yaqo nek jikko yi bon woto se kululal dane kulurlalu dane pour ka ko sutende pour gàttal wax ji ñaan ñi nga xam ne ni ñooy yarkat yi nding keelo anin demo solo nga ñoo maa koy e pour daaji ko leen ñu dimbalee yar suñ doom yu jigéen ñi doom yu baax yi yar leen ci jikko yu baax ala la ko nga sutura alquran kono yàlla mu ne ñu suturaay ci suñ boppa ci alquran moo moo me fango suturaay kenn sengo be bedoo kono i e ka ala doron doron doron ne soosoo di kaw doron képp koo xam ne ni suturaloo sa cër wala sa yaram ci kaw suuf ci àddina na nga xam ne yàlla rek moom ngay ñaawal te mooy yaa ngi mooy yàlla ko sabanjonga ni labango fi ma daanelee suma wax ji my last point ala soo kiliŋo miŋ ye a loŋ ko a ye ala jusoo bo faa turoo faa duniyaa kono li nga xam ne ni moo di mooy yàlla bi nga xam ne ni tax na ba yàlla mer génnee ko fagagal ko ci àddina wala moo lootu kankeyaade euh, moo di ne diggante mbiri góor jigéen yële alla ye fa turoo faa duniyaa luutu la jamaanoo la mu ne yàlla day faagaagal na ko mbir moomu leen ci jamono luut a ko ali a je daawoo daa la turoo faaje mu ne fu ngeen gis façon ngi jikko yu tilim yooyu leen rek faagaagal leen wo le ye tinna ko naali ye moo fula wo moo fula jaa kee la miŋ ka a naa baa kee ka mi bee fa mu ne looloo tax mu ne yàlla wax na ne su ngeen gisee ñaari nit ñoo xam ne ni ñu ngi seqa di ko def ñi koo def rey leen ala man la fay balu le fereŋ fereŋ duniyaa ngir yàlla bugut jikko ju bon jooju leen mu sax woto banko bee la dunoo la mu kon nag eh, warugali waa réew mi yépp la na buŋalu suñ kër yi na kordaalu suñ dëkk yi na hoteeloolu ngan a annene kana soto bum ñu bàyyi fa xel façon ji yooyu leen yu ñaaw yooyu yu tilim yooyu bum fa am a manque ite buntiyo kayroote a manque kordaatiyo e kayroote a koɗo man koye yow borom néeg bi wala borom kër gi wala borom hôtel eh, bi du jàmma joo xam ne nii dina la ko jural óorut bu ci dugal naka caa kum faa dula fi ma jeexale suma wax ji woo mu daaniroo la de boobu ñaan la ka president uh, we want to once again register our thanks and gratitude to the president and committee committee kuma bala non ayalo abe for a very important committee that was established ci committee bu am solo boo xam ne ni taxawaloon ne nekk committee min sasi doli bi and that committee was tasked periodically ka moolu jiiba e min ye sorongo kono min ɓe Uh, to see those uh, who are con uh, at least in prison ñi nga xam ne ni ñu ngi leen tëj kaso bengo waato doolu alabatu sanjaalole minnu be ko banna salolu sunkar salolu al be ñamin daf daan am jotaay bés yu demee ni ki feeti diinul islam yu demee ni korité ak itam tobaski like on occasions like idul fitri korité and and eid mubarak das tobaski ka doolu jiibe kono ka yam faye Uh, to give prerogative of mercy to pardon some of the prisoners. Uh, di am yërmande pour jégal ñi nga xam ne ni ñu ngi leen te ci kaso yi ci bés yi feet yu mel nii mba mba daani la pour woo comité ñi nga se alafa bambandi la baake I would like to appeal to you to at least reconsider or to strengthen the position of that uh, committee ah, kaatun ko Allah dëgëral taxawaay comité boobu leen seetaat ko Allah subhanahu wa la yàlla jongolu kili ko ko waat essayam fa Euh, because yàlla ci boppam sax moo rawaay doomu aadama ne yenn yi ñuy jéggalante nte yam fala noy be yàlla xalul keña kam mun a jéggal ñëpp nag ngir nag eh, tafaari niñ demee ah, bara doolu ni ngay jibe ngay den dema waaye ñeenañu su leen seetee seet ñi leen wóor wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa wa sallam Imam Modou lamin Touré. ñu ngi laa gërëm. Uh, we thank you very much ngay jey eh, sa contribution ci waxtaan wi. ila kumo beteata e kaca min keja. am na solo torop. ak kumaata. xanaa rek laa bëgg a dëgëral. lafta ku kiline bambandi la. ci li nga wax affaire yi bokk julli bi. Eh, ye min fo pour eh, nga denka sali lonkilin anin ka song lonkilin na. dama ko dëgëral rek waaye loolu du suma rôle ci bés bi ah, ka mankala loolu laati jang bara lafta ɗon ke lakkumo bambande ñun dañ warde toppa supreme islamic council eh, tol ñantale ka supreme islamic council la yamarole lamoy ka nooma parce que dañ day jokkoog màkka kaato ni màkka ka ñoomoyle ci bés yu mel nii eh, ñin lungol la ni siita dafa am lo xew démba ku fenne eh, keta kunun bañ gisee weer wi kabri e karooje ca clock tower ba clock tower to min bi nga xam ne fa la satellite yi nekka eh, du lami yalon ko satellite ol bebe wole to wone na niñ gise weer wi yaa yitandile karo jeta ñamin it was advanced technology moo ko wone ako ah, ñin jaman laban technology wolle wol fintinde dafa mel ni ki nag amulunta ah, ko ñun ñu ne fii tool minu be jàng comme que Supreme Islamic Council bayre Supreme Islamic Council ñooy jokkook Makka walla ni Makka ñoo mooy pour fu weer wi tollu foo karo tembe aɓe tembo min to ñun ñun banjul muslim elders min tol banjul muslim elders dañoo dëgëral suñ suñ suñ juboo ak ñoom eh, mben kamɓeŋole la kuolu bambandoo yitandi la ni kansuloo tema nga xam ne lii su xewee dañu war a ànd ak ñoom mi yaalon ko ni ñi keta ni ñanta ñoomutala nga nooma yebulu eh, télévision bi démba ako ni mi ye télévision jiibee kunun nga gis bañ gisee weer wi yaa yaaje kawin ka ye karoje nam wone ca satellite ya a findita ñamin satellite o kono amu doon benn werante so sor man soto karola jeeto fii mu ngi woon ci taw bu rëy jang abe kela waato min na sama baale be keeri jang so doon werante a man sula nu ñoo soosoo la fang dama doon wax lii rek eh, oncle Aliou ko aka ñim bambandi le doon pour dëgëral supreme islamic council pour supreme ka council la kango ka bambandi liñ dee def e ka minke niñ ñoo gaayde e ben tete kan ñamin président Your Excellency. Eh, ñu ngi kontaan ci ni nga jàppee Supreme Islamic Council. Eh, mbe kontaan ni mbaake eh, Supreme Islamic Council muta ñami. ci seen liggéey. la doo koo la. balaa ma woo beneen waxkat. janni mbe diyaamu laa doo commandé la. dañu war a wane suñu kontaante. ñantan na kontaanoo yitandi la. ci intervention bi waxtu wi. ye intervention o min ke ñu waatoo la. ci président. ye président la lim def ci weeri koor ye min ke sunkaro e kono mool nim ko daan defee ye i ka ke nu ñamin dron am na yeneen forum ako benn dool sotota